mbokk yi ginnaaw bu ñu santee yàlla suñu borom mi nga xam ne moo yeyoo cant te moom cant yépp julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ñu ko suñu borom digale ñuy tàllal suñuy loxo bi di di di ko jëmbale ci suñ borom mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy borom ak man te mooy mooy ki nga xam ne mooy borom sañ-sañ mu Cheikh Mamadou Mountakha mii nga xam ne moo moo fi nekkal Serigne tubaa te am ay yéene yu rëy rëy ci biir l'islam suñ borom dimbal def jàppaleel ko boppam taxawul ko boppam musal ko ci bépp ndog ak bépp bakk ba lépp loo xam ne yéene na koo def ci yoonu lislaam bii mu def ko ci defe nu kawe njottam tañ ànd kook moom te ndaj ci ngërëmul sëñ Tuubaa suñ borom yow suñ borom mën na ko jàpp na ko yaa nañ di tàllalaat suñuy loxo itam di ñaan suñ borom mi nga xam ne mooy borom kattan mooy borom man mooy borom sañ képp koo xam ne lislaam la tax a jóg suñ borom jàppaleel la boppam taxawul la boppam ba li nga xam ne yéene nga koo def nga def ko lu sa njot te nga daje cee ngërëmul suñ borom mi nga xam ne moo tax ñuy def li ñuy def ginnaaw loolu nag bi ñu nekkee di waxtaan ci li nga xam ne moom la lislaam bëgg xeetu sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk ci muy nekk benn jàppoo di dim di dimbalante bëggante loolu nga xam ne nag da koo teg ci ay ay ay ay taxawaay yu rëy yoo xam ne ba tax na bu ñu fekkee ne jaar nañ ci ni nga xam ne ni lañ ko tegalee jaar dox ci ni nga xam ni la bëgg ñu doxe ca ñu doxee ca ni nga xam ni la ni la ni la bëgg ñu doxee ca lépp loo xam ne mooy ak taqaliku wala lépp loo xam ne mooy ak doyadi wala lépp loo xam ne ak matadi dana jóg suñu diggante ndax kenn ku ne danga mën a mottali sa morom la la la manque ci yow bu fekkee ne ànd nañu doon benn te ànd googee nag suñu borom xam nañ ñu ànd gi lii tax mu mën a dëgër mooy ñu teg ko ci ragal yàlla képp ñuy ñuy xool doomu aadama ñuy xool ci doomu aadama yàlla te bañ cee xool nit ki nañuy xool ci doomu aadama yàlla ji te bañ cee xool nit ki loolu mooy tax ànd gi nga xam ne moom la ñuy ànd mu mën a doon ànd goo xam ne gu rëy la moo mën a ànd mooy taxit ànd ga mën a sax ndax leneen lu mu mën a doon buñ ko bu fekkee ne moo tax suñu ànd nekk mu nekk loola mën na mën nañ koo ñàkk wala ñun ci suñ bopp ñen ña wala ka gosee xaloon jóge fi te loolu yaa kon mu dañ kon ànd ga nga xam ne moom ngeen waroon a ànd te doon ànd koo xam ne da ciy jariñu fii adduna ak ngeen mën cee jariñu ni nga xam ne neen ko suñ borom bëggee loolu nag moo ci loolu nag ci taxawaay yii nga xam ne moom la lislaam taxaw ngir bëgg doomu aadama yi bëgg seet xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk benn doon ñu am kàttan doon ñu man dara doon ñoo xam ne ñuy xalaat lañ di bàyyi xel ne adduna jii kat suñ borom da ko da ko teg ci ay sabab te da te yam sabab yooyu mu ko teg itam nga xam ne dañoo def loo defar loo adduna defar loo nu àllaaxira te li nga xam ne moom la ñu jox ci temps bu ñuy war a defaree adduna ak àllaaxira ji xamuñ ni mu toll ndax suñ borom waxuñu ni mu toll kon kenn ku ne da ngaa war a benn jullit bu war a am jot wërta am jullit bu ne da ngaa war doon koo xam ne doo doo jàppal ne amoo benn jot boo xam ne war nga koo jeexal feneen fu dut ci loo xam ne lu lay jëriñ la wala ci àllaaxira jeexal ko leneen ci leneen loo xam ne bokkut ak yooyu googu jot waroo ko am ndax li li ñu la jox ngir defar loolu àddina ak alaaxira xamoonum toll ku xamu ki ko koo xam ne nag li nga yor xamoonum toll yaakaar naa boo dee dépassé war ngaa xam li ngay dépassé koy dépassé ndax loolu mooy tax nga mën a mucc ni nga xam ne noonu lañ ko yaakaare loolu tam moo tax nag suñ borom bi nga xamee ne xam na ne lii mën a dëgëral suñu mbokk ak suñu mbokkoo ak suñu dimbalante ak suñu bëggante mooy ñu teg ko ci yàlla di yëg suñu borom di yëg suñu borom ci doomu aadama ji nga xam ne moom lañ sëqal di yëg di xool yàlla ji képp ci doomu aadama ji nga xam ne moom lañ sëqal ndax loolu mooy tax mbokk gi mën a dëgër loolu mooy tax itam mu mën a sax loolu nag bi ko suñ borom bi ko yonent bi ko defee tax na lépp loo xam ne mooy lu waroon mën a andi ak tàqalikoo wala muy andi loolu loo xam ne mooy mën a andi ak ak ñàkk ànd loola suñ lislaam dindikoo ci kaw bi nga xamee ne xamal nañu li nga xam ne mooy war a saxal suñu mbokkoo ak suñu dimbalante li koy mën a dëgëral mooy ñu doon ñoo xam ne suñu mbokkoo ak suñu dimbalante ak suñu bëggante dañ koo teg ci kaw yàlla kese di xool doomu aadama ji di xool yàlla ci doomu aadama ji ndax bi leneen lu ñu ca teg rek loolu moo tax loolu day tax li nga xam ne moom la ñu bëgg ñu ma duñ ko mën a defee ni nga xam ne lañ ko war a defee. ginnaaw boobu loolu nag bi nga xamee ne lis nekk nañu benn di jàppalante di dimbalante xam suñu waxtu itam nan lañ ko war a jeexale da caa teg moom lislaam ne. dañoo war a doon ñoo xam ne nag waruñoo toog di accaaralu wala di di xoole dañoo war doon ñoo xam ne suñu waxtu dañ ko war a jëf ci jëfe ci loo xam ne moo mooy li li ñuy li ñu fi indi te bàyyi nu fi loola nag mooy jaamu suñ borom ak itam di liggéey ngir àdduna si jag na mu war a jage suñ kéem tolluwaay kattan ci doom ci ci ci ci ban manu doomu aadama loola nag moo tax ba lislaam muy mu doon koo xam ne li muy xoole àdduna ci li fi doomu aadama war a fee def mooy suñ borom da koo jox ay xéewal jox ko kattan jox ko man-man di ko seetlu nag ba xam moom xéewal yooyu mu ko jox ak kattan googee nga xam ne moom la man moom la ko jox ak man-man yooyu nga xam ne moom la ko jox nan la koy jëfandikoo ndax da koy jëfandikoo ci yoon wa gën a rafet wala da koy jëfandikoo ci neneen nu bokk ak nga xam ne moom la suñ borom bëggee loolu nag ñàkk koo jëfandikoo nag ci ni nga xam ne moom la ñu suñ borom bëgg ñu jëfandikoo ko loolu day day tekki ne ñun day ñi ngi jeexal suñu temps ci lu amul njariñ ñoo ngi ñoo ngi jeex ñi ngi jeexal suñu dund ci loo xam ne pertement rek la ñuy andil loolu moo tax suñu borom di wax ne wala asri inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil kenn ku ci melul nii nga xam ni lay bëgg a wax day na nga xam ne yaa ngi jeexal sa dund ci loo xam ne du lay jural ëllëg njariñ te alay àdduna si itam mën na la fee bana jural njariñ loola nag mooy waxtu bu nekk nga def sam xel ne la ngay def na doon luy jóge ci sa pas-pas boo xam ne moom nga pasal suñ fasal suñ borom te boo koy def itam koy defeen ko ci defin wa gën a rafet loola mooy tax ba ni nga bëgg amee li ngay jëf nga na nga ci la nga nga mën koo am na nga ci jàpp itam nga mën koo am ni ni nga ko ni nga ko yaakaare loolu waaye nag doomu adama dafa am lu nekk ci moom loo xam ne day xeex ak moom ci ji fas yéene koo jëmale ci nu bokkut ak ni nga xam ni la war a jaar loola nag mooy bakkanam bakkanam doomu aadama mën naa tax ba léeg-léeg loo xam ne war nañ koo def duñ ko def te la tax ñu di ko def mooy dañ ko teg rek ci ay yaakaar ak i jot ak i ak i mébét te loolu doonul loo xam ne lu lislaam nangu la ndax lislaam day wax ne yonent bi sallallahu alayhi day wax ne ngëm yàlla day doonul loo xam ne da nga koy wax rek di di ca la nga cay foog wala di ca jot la nga cay jot waaye ngëm yàlla mooy loo xam ne sax na ci sam xol te li ngay jëf li ngay jëf itam ñu di ñu di ca seen sa ngëm yàlla gi nga xam ne moom ngay wax ne am nañ doomi aadama yoo xam ne day nee na seen i yaakaar ak seen i mbibir ak seeni i njort dana dana leen wor ba danañ génn àdduna léeg-léeg te buñ demee àllaaxira duñ fa fekk wenn yiw nee na loola nag mooy la la leen ko yóbbi mooy dañoo waxoon ne dañoo xam ne suñ borom borom kàttan la borom kan borom man-man la te sañ na lu ne te man la lu ne kon nag yaakaar na jëru ñuy sonn ndax xam nañ ne mën nañoo defal lépp loo xam ne lañ moom lañ bëgg mën nañoo musal ci lépp loo xam ne li mu lañ muslu ndax am na kàttanam am na sañ-sañam nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam xam le ne rafet njortu dafa doon loo xam ne bala moo dëggu mooy la nga la ngay rafet njot da nga koy jëfandikoo waaye boo jëfandikoo wut la ngay rafet njot mel ni comme ni li ñuy suñ Tuubaa jàngaloon ne ñaar ñett dafee nekk loo xam ne dañ koy tuddee rafet njot ak loo xam ne dañ koy tuddee ñaaw njot ak loo xam ne dañ koy tuddee topp njot rafet njot nee na mooy la nga xam ne moom nga wax ne moom nga doon te di ca yaakaar la nga ca yaakaar da ngaa war a jëfandikoo loolee mu lay sant tey bàyyi li nga xam ne moo lay tare boo te bàyyi lam lay tere ba noppi boole ci nag rafet njort nee na loolu mooy rafet njort topp njort nag mooy koo xam ne la la la nga yaakaar te di ko topp defoo ci la nga ci war a def ba noppi jàpp ne nag da nga ca am la la nga bëgg loolu nee na kooku mooy topp njort defoo li nga war a def ba noppi te jàpp ne war la nga bëgg da ko am kooku nee na mooy topp njort ñaaw njort nag mooy koo xam ne da ngay defee ne lépp loo xam ne ñu ngi la koy wax ci lu baax rek liñ ci jublu mooy sonal la waaye doonut ne ndax yàlla moom borom kattan la borom sañ-sañ la borom man-man la te mën na lépp te sañ na lépp kon lépp loo xam ne doomu aadama mi ngi la koy digal ci ay jaamu yàlla ak sonneel sa ndigal suñ borom te ak bàyyil tere yi loola lim ci jublu mooy bëgg laa rek ndax yàlla mën naa mën na laa tabal àjjana ëllëg te doo jëf dara loo xam ne man yób mën na la faa yóbbu mën na laa musal ci sawara itam te doo bàyyi bàyyiwoo li nga xam ne moo tax nga mën caa mucc loolu nag ak waru la ak itam ñaaw njott la ci suñ borom ndax suñ borom lim man man na lu ne waaye nag xam nañ ne li muy man man lépp itam am na yoo xam ne man na ko waaye defu ko loo xam ne nag mën na ko defu ko boo ci bëggee teg sa njott yow day mel ni yaa ngi nax sa bopp day mel ni itam yaa ngi jàpp loo xam ne wërta waroo koo jàpp loolu nag moo tax ñu war a lu bu baax di jéem a def li nga xam ne moom la suñu borom bëgg ci ñun di bay fas yéene li nga xam ne moom la ñuy tere ba noppi nag boole kook nag rafet njot ci ne bu ëllëgee day li nga xam ne moom la diggee ci ku topp ku ko topp da ko am li nga xam ne moom la moom la tëkkoo ci ki nga xam ne mooy def lu bokk ak li mu digle da nga dana la dal loola loola mooy tekki ak rafet mooy tekki ak rafet jot kon yàlla na suñu borom mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy borom a man-man te mooy borom sañ-sañ di ñu dimbale ba ñuy xam fi nga xam ne fi la ñuy teg suñu tànk te di tey dox nañ ca war a doxe ci te doxin wa tam mooy ni nga xam ne ni la ko suñ borom bëggi ndax loola mooy da ngay da ngay jaamu yàlla ba noppi di def li la war ba noppi nag toog caa teg soog caa teg rafet njort waaye nag boo deful li la war ba noppi teg ca jàpp ne da ngay rafet njort ca da li ngay bëgg danga ko am kooku day mel ni yaa ngi nax sa bopp koo xam ne itam lañ koy wax ci diggal day jàpp ne xay na ku ko bëgg a sonal rek la waaye suñ borom mën na lépp waaye suñ borom li ñu lépp te mbuuxut kenn ne dinaa def lépp waxut kenn ne dinaa def lépp waxut kenn itam ne la boo defee nangam ji wala nga bàyyi nangam ji dana tax ma defal la li nga xam ne moo moom moom nga moom nga bëgg kon li ñu war a def mooy nañuy def li ñuy digal di bàyyi li nga xam ne moom la ñu tere ba noppi soog caa teg nag rafet njot yàlla nañ suñu borom dimbale ci loolu ba ñuy xam suñ bopp xam fa ñuy war a teg suñu tànk xam fi nga xam ne fi lañ war a dox jëm ba ba ëllëgee li nga xam ne moom la ñu yaakaar ci suñu borom ci li nga xam ne diggee na ko ak li nga xam ne moom la moom la tëkkoo lim diggee mu mu jox nu ko li nga xam ne aleykum wa sallu ala nabiyikum allahuma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabiina lahum bi ihsani ila yawmi ddin